Thank you. jamono ji coow li ci Sénégal ñuy wax ci pétrole bi gis nañ Aliou Sall gis nañ aussi procureur moo ngi woolu ñenn ci ñoo xam ne nee na appel à témoin bi mu waxoon gis nañ Abdoul Mbaye dem na wuy ji encore euh, ba ci El Hadj Amadou Kassé lan moo ci sa gis-gis jamono ji waaw leen ci gis man sama gis-gis mooy en tant que député nekkal fii bi ñun daal dafa tey suñu ndax procureur nam waroon taxawee taxawu ko ndax ay procès jiitu na fi bu fekkee dañ ko loxo ci poos lañ ko jàppee kon nag dafa waroon tey moom mu taxaw ni mu ni mu taxawaloon Karim Wade taxawal ko Khalifa Sall moom procureur na mu ci taxawoon mu taxawee ko nii mais ni mu ci taxawee nii tey na sunu xel ndax itam euh, porte parole président de la république bu fekkee dafa dem ci benn seenu télévision wax fa la mu wax moo am ñoom ñu taxaw dàq ko ñu loolu dafay tey sunu xel ndax itam dafa am na complot de l' moo fi am état bi daal boo bëggee dégg dëgg kumba am ndey kumba mu ndey moo fi am. lan ngeen fas yéene def jamono ji ñun taxaw ànd ak sénégalais yi rek ñu lépp ñu teg ko ci kaw yoon te sénégalais xam ne ñun ñëpp no moom alal ji du alalu kii wala alalu ka alal ji alalu sénégalais yëpp na leer